ci bon plan yi ak Adjaratou Mati Dieng yenn saa yi ñu gis yu baax yoo xamante ni euh, ñu njëkk lii wala tubaab yee ko moom wala euh, alors que am na ay place ak ay bërëb yu baax yoo xam ne mën nañ fa am ay bagage surtout bagage su kër yi waaw surtout bagage su kër yi Pape xam nga ni wax naa la ko nekk ñaar moo am da ngay dugg toog mbaa nga dugg génn mhm. am nag loo xam ne moo lay maanaam moo lay bàyyi parfois mhm. ci li nga xam ne moo di néeg bi wala salon wala sax salle de bain mhm. bi nga xam ne fa ngay faral di dugg mu nekk yoo xam ne que lu am solo la ci dund doomu aadama bi xanaa rek ñu ànd ak ñi nga xam ne di waa régie xool dellu si waat ak yéen ci plateau bi. Euh, indi naa conteneur 40 pieds ak benn 40 pieds ak benn 20 pieds laa wàccee barki démb ak démb euh, fuxtu laa indi man souvent fuxtu laa indi parce que fuxtu moo am solo ci ngay mën a def bagage nécessité yëpp ndax euh, boo amee tous les clients da ngay mën a indi fuxtu pour mën a dugal bagage yëpp. FM rubrique gëm bi am na solo lool parce que day tax nga wane nga fësal ne conteneur yi nekkul ne loolu rek li ñu daan indi rek la ñuy indi les conteneurs yi tam wàccu ci grande surface man de ce fait que sama yoo xam ne si biir kër gi laa koy wàcc ay dépôt personnel ak ci magasin ba ak ci boutique bi parce que clients yi léegi duñ dañuy ñëw si boutique ba kese am na clients yoo xam ne c'est intime da leen am foo leen di dalal loolu yëpp da nga ko ci sóoraale moo tax conteneur bi mun na wàcc fu ne man mun naa wàcc fu ne conteneur te nekkul conteneur yoo xam ne aussi bagage bépp mooy daj day nekk bees bu dee qualité bi la dama lay jox garantie muy télé muy meuble muy lépp dama lay jox garantie te ba pare dama am équipe équipe boo xam ne ñooy monter ñoo lay ñoo lay déplacé même booy demonte damay toppaat action boo ma wooyee sama client bi damay ñëw démonté la euh, dañ may jox tamit kër entier ma décoré lépp maa lay defal couleur bi dañuy ànd nag ci selon touche bi nga bëgg selon couleur bi ba ba ni ko bëggee. si euh, bagage yi rafet na de ah. <laughs> rafet na Pape Cheikh waaye tamit. yëpp euh, ci siis bi. <laughs> c'est bon li docteur wax léegi nii xanaa du jar boo tëddee ci magaay bi jar lal bi boo ci tëdd doo naan somnifère da ngay tëdd moom kay doo am sax somnifère waxuma dara mais néeg bi da dugg rek nga am envie toog ak xet gu neex. Ah, parce que yaa ngi merci. ah yooyu mooy mooy góor yi nga xam ne ndeysaan bu ñu wàccee du ñu soxla taxawaalu. parce que leen na leen maanaam àjjanaa ngi leen di xaar seen kër. kër moom boo ko defaree ala kulli al da yàkkamti dellu ca. merci ah. mais am na nag ñoo xam ne wax dëgg fa yàlla oustaz dañuy wàccee taxawaalu parce que xam nañ la leen fay fekk. jéel moom bu wàccee du génn. Mhm. wallaay ndax may mun a. Mhm. li muy def rafet na. Mhm. te dëgër na. te dëgër na. te ku am yërmande la. yomb <laughs> ndànk ndànk man noonu la may defal man noonu la may defal bu baax. matériel conteneur day fekk ne que c'est à moindre est-ce que moom lu muy jaay yomb na. waaw comme ni ko Oustaz waxee moom nag ndeysaan macha allah li muy indi ku nekk euh, gis na ko ci ay ay ay bagages yu baax. Mm-hmm. mais dafa yombalal li nga xam ni moom lay jaay moo gën a tax sax ñu dem seeti ko parce que jàmbaar la. Mm-hmm. xale la waaye gëm li muy def loolu dégg ko nee na wàcc na quatre conteneurs. xam nga yu yu bees taxi yu bees tax xam nga xam nga xam nga lu ci mel ni serviette yi. ci yenn yi nga koy gis. moom da koy indi Sénégal indi ay max surtout xale yi nga xam ne dañuy soog a dugg ci ci dama la bëgg a gërëm parce que man nga ko teralee ci fajar bi vraiment aw ma sa fay nag waaw bii dama la koy teralee moom bii moom bii dama la la déjà mun naa sama rakk la ñoo bokk benn yaay Adja dégg ngeen baabu waaye yow sama sama sama nit nga te dañu yàgg maa lay gërëm bu baax waaw kon dama lay teralee li nga xam ne serviette bi ñu may njëkk a offrir ci sama carrière animateur en direct yaa ma koy njëkk a jox waaw waaw merci teg ci ay peignoir ak yu baax xam naa ne Mounass mu ngi lay dégg su la seet si indi la yu baax yooyu waaye itam ak ay mbàjj donte ah. sedd bi jeex na ah. mais am na ñoo xam ne ndeysaan Pape Cheikh bu ñu tëddee te sàngu ñu du ñu nalaw ah. am nag ay mbàjj yu baax nekk yoo xam ne que ni euh, qualité la mm-hmm. xam na am na yoo xam ne ndeysaan da da nga ciy tëdd rek di tisoo leeg ñoom seen mm-hmm. waaye yi moom li euh, professeur wax rek yi moom booy booy tëddi doon mm-hmm. naan somme di fer ah maleem da ngaa bëgg maleem waaw non noonu ngeen ko bëggee rek ni ngeen Mati moom day dem di xooli li nga xam ne moo di bon plan yi téléspectateurs yi ñi bëgg ñuy euh, wane seeni i bagages. Mhm. yi ñuy jaay ci seen i bërëb ba tuddee ko bon plan ak euh, ajot mati Carter mën ngeen jokkoo euh, ak télévision Futur Média bu ko defee ma bu jot ñu présenté leen seen yu baax lii mën ngeen ko amaat ci YouTube bi slash TFM. gis ngeen ni mu duwee ci ci œil du tigre mën naa laa jox bi rek. Ah, nga def fu tigre non toogal dinaa la ko indi <laughs> ça beaucoup de qualité mu testé ko. waaw waaw mu testé ko. lamb qualité bi nga xam ne moom la ñu moom la ñu. mun a testé ko. Ah. docteur ah. bi loo ci wax. yow de yow de yaay docteur en bagage yu baax. waaw maay docteur en bagage yu baax <laughs> <laughs> kon nag nañu uh-huh. nañu ko dem seeti xale la macha allah am na jom it uh-huh. dafay indi yu baax comme ni ñu ko waxee les bons plans. Uh-huh. Euh, munaas amit ay ay ay lal yu baax gis ngeen ko ci li nga xam ni moom dañu indi. Euh, di nekk koo xam ni moom tamit euh, foog ñu gërëm ko parce que daf ñu yombalal li nga xam ne moo di liggéey parce que yombul ñu dem seeti ko ak li nga xam ne rek moom moo di bagage yi nga xam ne keroog bi mu koy soog indi mu daj ko ci suñu kanam baax a baax. munaas ñu ngi lay sargal baax a baax te lay ñaan bagage yàlla jar ak jàmm te mi ñëw seet la Pape ñi nga xam ne bëgg nañ ko joindre parce que saa yu ñu gisee yu ñu mel ci li nga xam ne moo di télé bi mhm. li ñuy bëgg rek moo di mhm. mhm. moo di borom tour du monde merci euh, ñu ngi lay gërëm bu baax Adjaratou Mati Dieng gërëm tamit euh, munaas euh, tour du monde moom ñoo bokk yaay Adja dëggeen chimère